benn candidat ci cent cinquante communes yi muy dem ci dix départements yi muy dem ak ci quatre villes yi muy dem tànn ci benn candidat population yi ñooy tànn ñëw ci union citoyenne union citoyenne investir parce que noonu la ñuy fonctionner loolu lañ gëm ñun gëmuñu coalition dañu mës a wax que ni coalition rassemblement de comploteurs la pour nax Sénégalais loolu ma doon loolu moo tax ma la doon laaj euh, poids bi parce que euh, ñoom ñëpp ci ay coalition la nekk alors que euh, yow wax nga ko nekku leen ci coalition gëmul leen coalition également poids bi Sénégalais yee koy joxe mhm. il faut que ñu bàyyi nax Sénégalais yi politiciens yi ils représentent pas un pour cent des Sénégalais il faut que ñu bàyyi nax Sénégalais yi mhm. poids bi Sénégalais yi ñoo koy joxe nit ñi accepté nañ que ne Soham a fait du bon travail nit ñi accepté nañ que ne nit ku baax la nit ñi ab accepté nañ ko ku dëggu la mais lan moo changé ci diggante bi même nit bi la même nit bi la dara changé wul même nit bi moo taxawaat ne waa Dakar joxaat leen ma dëkk bi ma liggéeyaat ko dara changé wu ci est-ce que parce que union citoyenne moo ko investir daf dafay soppeeku non union citoyenne amul benn influence ci moom union citoyenne bu bu bu munee bu ko munee dolli doole nit ñi dinañ xam ne que union citoyenne parti bu am doole la parce que parti bu bëri xam-xam la parce que parti buy réfléchir la tous les jours mm-hmm. ak méthode ñëpp gis nañ ni union citoyenne di liggéeyee administration territoriale Sénégal yëpp ñoo ñu félicité amul benn dossier bu ñu gis rature benn dossier union citoyenne bu génn de notre pôle politique de notre pôle élection bu am rature bu am benn difficulté suñu suñu candidats yi cinq minutes la ñuy def devant la commission génn dem seen yoon. parce que on travaille avec méthode. ñoo njëkk a déposé caution Sénégal ñoo njëkk a déposé liste Sénégal les gens disent que c'est un petit parti. je dis que c'est une organisation qui travaille de façon méthodique et scientifique pour aider les Sénégalais à participer à la vie politique de leur pays. à s'affirmer bépp Sénégalais bu am lu muy wax. union citoyenne na la may doole pour nga wax léegi nag euh, allez-y euh, niñ koy waxee l'histoire euh, le le future le futur nous montrera lan la Soham ni mun yaakaar naa ne li munoon démb daf koy gën a mun gannaaw ëllëg daf koy gën a mun suba parce que euh, am na un peu plus de pouvoir autour d'elle mais encore une fois il faut pas que les gens se trompent Union Citoyenne dugalul Soham Wardini dans aucune aventure suñ ko mënoon suñ ko mënoon dugal ci aventure bi dinañ ko def mais aventure bi c'est son aventure personnelle c'est son aventure personnelle ñu ñëw accompagner ko ci di ko souhaiter le plus grand bien que au soir du 23 janvier sénégalais yi waa Dakar voteel ko ñi ñi ñi ñi ko voteelul ak ñi ko ak acclamé ko mu dem à la ville de dakaar continuer liggéey bu rafet ba mu fa doon def. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, rapidement s'il vous plaît waa Abba balaa ñu dem ci Mamadou. Mm-hmm. nga ne profil de campagne yu ñu bi ñu am ni local bi ñu jëm ni li gën a metti mooy nga exister. te du sa jëm du sa. mooy nga exister. te su jëmm moo tax nga exister xam nga tax nga exister machine bi lay porter expérience bi ci am mooy 2014 benn instant Pape Diop si boppam ancien maire de Dakar dafa réer ci campagne bi il a accuser la presse nee na la presse a créé une dualité entre Mimi Touré bon parlant de femme aussi parce que Mimi Touré était là. Mhm. et Khalifa Sall. entre Benno Bokk Yaakaar et Taxawu Sénégal mécaniquement quand on a une une campagne comme ça où tu as une force comme il est très difficile de faire une troisième voie ou d'exister et c'est ça le danger. alors loolu sa analyse la Abba euh, ñu nangul na ko ñu nangul la ko ah. maama <laughs> en tout ah euh, la la ministre Aïssata Tall Sall bi ma gisee assemblée nationale daf ma ne bi ma la njëkkee gis à la télé daf ne mais qui est ce zombie là. Hmm. bi ñuy bi ñuy dem élection législative 2017. sous la bannière de Union citoyenne tout le monde disait que ñii duñ mës a dem fenn on est entré à l'Assemblée nationale mm-hmm. et en 2024 diggante tey ak 2024 nit ñi dinañ gis luñ mës a gis au Sénégal parce que nous sommes en train de travailler à mettre au Sénégal au, au niveau les plus élevés mm -hmm. autre chose que les politiciens professionnels mm -hmm. alors Mamadou euh, euh, euh, sànq yaa ngi wax ne certes frustré wu leen mais nekk ci biir coalition ber déjà sa liste gis nañu ay localité yu bari gis nañu sorti Aïda Sow Diawara bi nga xam ne dañu weñaar loxoom dem teg fa ki nga xam ne mooy Lat Diop yeneen gox ak yeneen gox également gis nañu député Yaya Diallo bi nga xam ne soutenirul le candidat de la coalition euh, Benno Bokk Yaakaar mais dafa dem soutenir beneen candidat euh, di euh, beneen candidat gis nañu ay gox yu bari ah yoo xam ne bu naa masal déggoon nañu également frustration mën nañu ci mën nañu ci cité yu bari est-ce que yéen ngi xalaat ne le président de la République mën na tirer les conséquences de ci actes yi nga xam ne proposé ngeen ko. Euh, encore une fois euh, Fatou Abdou damay may rek ma jox tuuti sama avis. Mhm. par rapport ak euh, ville de Dakar ak Soham man Soham sama yaay la sama xarit la Barthélemy aussi est mon frère et mon ami je sais que c'est un choix difficile choix bu métti la loolu ñëpp ñëpp Abba Abba n'est pas n'est pas à l'aise mhm. par rapport ak sujet bi parce que Abba travaille avec Soham Wardini. et mun naa ci wax lu bëree bëri. waaw maintenant lii honorable wax man ci laa d'accord élection amul élection perdue d'avance amul élection gagnée d'avance amul parce que dafa yéex a jóg amul parce que yéexul jóg am mérite je l'ai tout à l'heure dama ko waxoon naa ko sànq dama koy bamtuwaat dañ ko sacrifier man loolu laa gëm parce que machine bi Abba di wax Soham daf ko mérité. parce que je travaille avec elle pendant quatre ans je suis vice-président de la commission éducation et insertion professionnelle à la ville de Dakar donc li Abba mën a wax lu bëri man tamit mën naa wax lu bëri dañ ko doon jàppale parce que elle a fait un mandat lii notre mon ami et wax Seydou mooy que ni elle a pris ses responsabilités il est vrai que dafa xaw a dafa xaw a tardé mais oui mais c'est je suis d'accord c'est pour que c'est c'est effectivement par loyauté parce que ko waxoon il y a un mois. non absolument mais mais mais mais mais j'ai expliqué tout à honorable que nu mu tardé nii warul bett kenn parce que man dund naa ko te mun naa ci wax lu bari man tamit mais lii euh, mon frère et ami wax mooy que ni choix man soo am dama koy conforter dans sa décision parce que c'est une décision de dignité c'est une décision de responsabilité et c'est une décision d'honneur mm-hmm. parce que soo nekkee say nawle nga gérer ville Dakar zéro faute moi moi je suis pas je pas de Yewwi et je suis pas de, de l'AFP mhm. mais je connais la dame je connais la femme je connais la maman mm -hmm. moi je l'ai rencontrée je peux le dire ici mhm. à 48 heures avant yii yëpp et effectivement kenn moo xam la fu muy dem parce que mu ngi doon déglu mais même parcelle aussi les jeunes qui m'écoutent xam nañ ni 48 heures avant xamuñu woon fu ñu doon jëm mhm. loolu on doit pas rester des responsables ak 48 heures de de de de d'une façon nous man gëmuma man li ma gëm mooy élection yii ñu jëm nii dañ ko régler ba pare. suñ ko réglé ba pare 2024 ça quoi. non ça dire que on parle de 2024. on va ah parce que élection yi euh, parce que. parce que même Mahmoud Saleh en a parlé. dafa dé mais Mahmoud Saleh. oui loolu loolu mu wax yow da nga ko xeeb. non non du question xeeb. mais mm-hmm. ñun da ko gëmul lool. non non ñun ñun Ousmane Tanor Dieng nem si yàlla si. dafa wax ni soxla du am xam nga moi ce qui me mobilise tey mooy comment faire pour gagner les Parcelles Assainies avec la bannière du parti socialiste man loolu moo loolu lay xool nu ma koy réglé ba pare su ma ko réglé ba mu féetee boor ma doog a attaquer législative yi en ce moment là suñu paree législative on aura les véritables enjeux président bi il va il va parler. mais loolu est-ce que dina yomb déjà yéen seeyal ngeen seen bopp ci biir. coalition euh, Benno Bokk Yaakaar euh, euh, ñëw ba tey. Um, yaa recopier. Hmm. waaw da ngay copier coller hmm. parce que loolu la gars yi di wax fépp. Hmm. da seeyal seen bopp man man man man en tant que secrétaire à la vie politique du parti socialiste. en tant que responsable du parti fa laa seere sama bopp seelu ma benn sama bopp. te je peux parler euh, parce que coalition la ah xam nga coalition ak nekk ci président même comme xam nga xam nga coalition xam nga comme disait disait euh, Chevènement affaire soo ci nekkee da ngay da ngay liggéey. je veux pas exprimer un ministre ah <laughs> wala da ngay mutu mhm. mais je veux dire que le parti socialiste on nous prendra jamais à défaut parce que nous avons été au pouvoir. soo nekk ci coalition ngay nekk ci coalition dignement et avec responsabilité nous avons pris le libre choix d'accompagner le président de la République te accompagnement bi yeggagul mais dañuy dem et loolu aussi parti socialiste bés bu jotee